Ngowaay. ay Paasan waay sëñ Gueye mu baax bi Diop mm-hmm. la sant nag c'est un Diop. Biram Souley Diop Serigne Gueye Diop Ba Assane Seck Diop. bonjour Ba Assane. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Euh, Koor. oui Cissé. Mm-hmm. waaw. Diop euh, euh, Diop. <laughs> ak ñii si koy toog ku leen. waaw Walfadjri ñu leen di nuyu. aywa ñu ngi leen di fay. damaa nekkoon réveil ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ndax dama bala gaa yi naan da dañuy dëkkee ta dañu dañoo sopp dañuy cuub coppet fu ne moo tax la xew ba jàmm. sant Serigne Gueye Diop. noo fanaane ah da ngeen bañ ko tudd Serigne Gueye Diop. Ah, déedéet daf leen métti déedéet. seen xol da cee neexul. da ngeen ci mer. dama taxaw temm. dafa seen xol dafa mer ci da ngeen di kii ci loolu. est-ce que xale bi ñu di ko ubbee. sonnerie lañ koy def. daf leen ko sonnerie. télé bi téléphone bi naan ah, ah. sëriñ. ma wuy ma. vingt une heures xaw ma vingt deux heures ngooni Sall di posté ka kii xanaa bàyyi àll dugal ñoom ñoom ñu dugalandoo ma ñëw dellu gannaaw ma toog naan nii téye commande bi naan. am Serigne Gueye Diop. Ah. <laughs> parcelle woon naa la mais ñoom Baye Al. ànd si waaw da nga wax ma répété waxal ma jottali. <laughs> wuy ma. waxal ma jottali. ayca waaw ma ne noo fanaanoo aw aada sëriñ bi waxal ma jottali. waaw ma ne noo fanaanoo. alhamdulilah. bàyyi nga ne pétrole bi dañ koy commencé exploité. <laughs> li ci yëpp nag moom moo ko. looloo ci métti wuy ma nag kii na nag. loo waaj doon wax dam na sama moral bi nag. loolu <laughs> waaw déet dama dëgg yàlla. looloo ci métti nag. dam na moral bi xam nga euh, ba président bi demee démb. waaw. la mu sol na mu fa taxawee boo xoolee. ñu tubaab yëpp ñu ngi leen ñu ngi nekk ca ginnaaw taxaw di ñu seetaan. Mm-hmm. di dof cof suñu kaw. Mm. te noo moom lépp lu ci ëpp. Mm-hmm. wuy ma ndaw su wut saa sa. feeñul sax. Mm-hmm. président il est content c'est bien c'est normal c'est pas. c'est un grand pas pour le Sénégal waaye nag nguur gi fi nekkoon. ñoo li ñoo. la ma jël eh, euh, <laughs> euh, laajal ma internautes yi ce que signifie être nul. Euh, corps laajal ma internautes yi ce que signifie être nul. mooy mooy. ku doppalal wala. yaa ñu wax leen ñu ko. en attendant xam nga lu tax hmm. nguur gi fi nekkoon man xaw ma ay rangum. affaire ra xanaa mooy mooy. affaire rangum noon di 44. xanaa noon di 44. jundoo patapata pata waya waya lagara. cim gëgëgë bëgëgë. lii la ne mëq nag tiim na xulil. di jël décision yu bon. ba nga xam ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président il va venir taxaw on va applaudir ka ka déglu nag ci xel. Mm. am na fu mu waxee. muy fan. dafa ne. Mm. Ah. li fi ne liñ ci am part bi ñuy am. Mm-hmm. nañu ko sàmm ba ñun ñi fi ne ak ñi war a ñëw ñu am ci. dix pour cent la de borom xam-xam yi naan noonu. ëpp na ko nekkatul waaw déglu leen ma manaar quatre vingt deux pour cent ah. la Woodside moom foofu hmm. déglu rek hmm. waaw léegi yow ñu ne yow am nga dix huit pour cent hmm. sa yow sa huit pour cent ya dafa am lu tax boo xefee ñoom quatre vingt dix pour cent la ñu am wax ak dégg ñoo yebandi foofu beneen bi malgré tout le président tient et il a dit sàmm même bu dee lañ cay am noonu waaye nee na fa mu nekk ak la ñuy rattrapé looloo am solo ci kàddu gi mhm. la ñuy rattrapé day dabu day dabu le speech de monsieur Sonko le premier ministre quand il parlait de renégociation te loolu fulla ak fayda pas-pas ak réew mu def bloc mhm. Sénégal nañuy xëy vingt quatre heures sur vingt quatre gàddu suñu ay pancarte bi yoon du nekk marche pour démocratie xam nga lu muy yoon hmm. li nu moom la ñu bëgg a jël ñun dañoo bëgg sénégalais retrouver li nga xam ne moo ko moom recouvrer son argent ses richesses pas à pas ñu won àdduna bi ci wàllu information leneen leen leen ne leen kat waa Sénégal ba nga hmm. xam ne ñoom seen média yi bu ñu toogee dañuy waxtaane grande manifestation de millions de Sénégalais dans la rue pour réclamer leurs ressources minières foofu la àdduna bi toll waaw presse bi la presse sénégalaise Pape Ousmane Kor Ngone Saliou keneen ak keneen kasi toog baa toogee di wax ak askan bi nu nu joxe onde positive yi ne hmm. ñun Sénégal ñoo gën a riche ci ci àdduna bi ñun noo am lu noo am lu ne hmm. noo am lépp Qatar gaz dong la am ñun am nañu maanaam bu doon gaz da nga naan ay ay ay ay teg ci uy ma ressources yu dul jeex ci fànn wu ne Qatar amul calcaire hmm. amul phosphate amul manganèse amul uranium am loolu yëpp ñun am nañ ko manganèse bi ngay wax coow coow lu rëy nga naan ma coow am fer am on a tout. Hmm. ba mu des lenn. Hmm. yàlla na toonu ko ay boroom xam-xam yu dëng jiite réew mi yore xam-xam doon yi doon yi kii hmm. la yàlla xam ne. Valène <laughs> alors euh, ñu ñëw ci les échos dellusiwaat na ci rapport 2024 bu ñu jagleel traite des personnes au Sénégal euh, département d'État mi ngi épinglé les enseignants les touristes les Nigérians certains enseignants du secondaire dañuy exploiter les filles di leen solliciter ay relations sexuelles en échange d'argent wala bien wala de bonnes notes Euh, les enfants domestiques wala ñi nga xam ne leen di utiliser ci exploitation d'or bu ñu nga xam ne dénoncé nañ ko li xale yiy liggéey ci pêche ci vente ambulante ak agriculture aussi. Hmm. ñooñu itam daal nañ koy fustiger rapport 2024 bi nag ñu ngi ko fësal naka démb. beneen xët sax daal na ci wax waaye li ci gën a doy waar mooy enseignants yi nga xam ne dañuy exploiter ñi seen élèves yi. leen jox xaalis wala ñu leen di sàkku pour may leen ay notes yu baax ndax gone gi dana jàngati. c'est à l'image du pays la la haute dépravation des mœurs parce que dëkk boo xam ni léegi nii rek maak élage bi ñuy ñëw hmm. waajaa ngi suñu kanam di dox xulil hmm. léegi nit ki mooy moytuwul oto bi oto bi ka moytu mais lu neex hmm. ba tey ba sànq waa ji xooluñu wuy ma élage na ma kii de xoolal dur la def xam nga li xëy suba teel di màndi bu naaj bi tàngee mu dee de. bu naaj bi tàngee fu mu jëm. fu jëm léegi ci contexte boobu jàppal ni réew mi yëpp ci foofu la ne. Mm-hmm. moo tax dafa am dafa am dafa am état bi état bi ñoo am ñoo dugg ni ruuba. Mm-hmm. li nu war a defar a bare. yàlla na yàlla jàppale. yàlla na yàlla jàppale. lii lii lii lii léegi nag ñu jël ñu jël yu bon yëpp def ko ci ban dessinée yi. def ko ci def bi bi ci gën a dangereux. Mm. xam nga ban la. ban la sunu yëf. biir canal yow li nga moom moom mu dugal ko biir canal nee na suñu yëf léegi xoolal yow jëla sa yëf noonu la ñu def ci vaccin yi jël leen ngeen dem produire ay vaccin wuy ma ah. dem leen ngeen rey seen bopp suñu yëf wuy ma ñu dugal ci déperdition ñu jël ñoo xam ni yoruñu cent franc mel ni man ñu joué la pièce boo xam ne daa ci am tuuti. Hmm. dugal la ci benn luxe boo xam ne boo paree. Hmm. luxe boobu ngay jéem a incarné moom ngaa wuti. Hmm. ñu rey la. te amoo ko te amoo. ñu jaxase dëkk bi dunduloo nu faux rêve aliéné nañu yàq suñu réew il faut refonder hmm. installé ñu Demba membre bu conseil économique social et environnemental euh, Diomaye valide les conseillers du Macky mu mel ne nag euh, les échos li mu wax rek mooy décret bi nga xam ne euh, président Macky Sall jëloon na ko le 18 mars kenn abrogé wu ko ndax Demba gis nañu leen ñoom Fou Malade ak ñi ca topp ñu daal di leen. installé installé ku nekk takk say charpe. Ah, on a on a un chef d'État assez mesuré et avec une énorme hauteur. Mm. C'est très important ci njiit. Mhm. jéggi loolu la ki fi newoon mënutoon moom bu doon moom la lii. Hmm. Hmm. nii nii la koy def nii. <laughs> da koy da ko fi.